aywa dem ak dikk maa ngi leen wax ci njalbeen gi naan leen diwaan Ndoukoumane moom fi mu ne nii zone euh, accidentogène la ndax li fay ñàkk bakkan euh, doy na waar bi ci mujj sànq Chérif dafa mel ne yaa ngi koy wax ci biir xabaar yi benn woto kaat x moo dëpp ba ko doon dawal ñàkk bakkanam fi si loolu nag euh, am na ñuñ ci laaj ñu yeewoo fële ci Ndoukoumane ñenn ñi ne yaroo sa sago gi bokk na ci li koy waral waaye itam jumtukaay yu ci mel ni ralentisseur ak yeneen yi day manqué ci boor boobu ba tax na bakkan yi fee loolu yëpp euh, dañuy dem ca Kaffrine ànd fa ak Omar Ndiaye. bëri ay accident yu ñu nemmeeku ci diwaanu Kaffrine rawatina ci route nationale numéro 1 bi ba ay bakkan yu bëri du ci roj lu ci bëri ñenn jàpp ne ñàkk sàmmonte code de la route moo ko waral bokk na ci góor gi ay atam takk juróom-ñaar fukki at jëm kaw. ñiy dawal oto léegi xamuñ ci code de la route bi dara intersection yi xamuñ ci dara yaa ngi dégg parce que route bu nekk dafa am lu wax. kon temps bi mu li mu wax ci code de la route loolu soo ko deful loolu la ca fekk yaa ko teg sa bopp parce que oto it su paanee ci kaw tali bi fi mu paan nga bàyyi ko fa deux jours trois jours kenn déplacé wu ko su su oto ñëwee bi accident lay indi. troisième position yi lépp doole ci accident yi moo ko it war a dem mën a mën a goo dem nga nga ngay damay dem force forcé te ki ngay jàkkaar loolu nga xam ne ni moo yor moo moom va bi nga bëgg a bi nga bëgg a dugalee oto bi moom xamoo moo la gën a gaaw wala nga ne dinaa dinaa oto bii. ku ko ci def rek ñaare di nga gis conséquences yu doy waar lu bari moo ko fi boo xoolee accident yi quatre vingt euh, cent accident yëpp quatre vingt dix pour cent yi euh, xol yi daal moom lañu ñu war a defaraat ci ci wàllu sëfër. am ñu jàpp ne woote yi ñoo bëri lool wute lool ak démb. te bëri na ci yoo xam ne ay ndaw a koy dawal ndax ci dolli télé bi war nañ ko dooleel ak ay doodaan. relantir yi wax nañ ko ba saa yi réunion bu ñu dem Kaffrine wax nañ ko fa mais relantir mënul am mbir Kaffrine mais relantir boo amoon biir Kaffrine tey. lum te nag bu koy amit nañ woo ñi nga xam ne ñoo ne coote lu mel ni président Darou Thiaw la ñu mel noonu nga xam ne xam nañ waxte yi fa ñu daaw fa ñu toll ndax dëkk boobu ñu demoon tey accident bi amoon mel noonu moom mi la gis ne lu ji njàkk client yi ñooy njàkk ba tax na ñu bëri dañuy faral di yàkkamti moo waral waraf jox naan yàkkamte gaawtu mën naa jur doom rek ci am ci wàll client yi benn buy duggoor a yàkkam nit ñi nag bu ñu yàkkamte mën naa dem sax ba indi parab loolu yëpp mën na indi jax client yi dugg ci oto yi nañu ànd ak seen sago. naam kilifa yi daane jël ay dogal ci saa si bu accident yu mel ni amee waaye lu bëri day mujj tàbb géej. ñuy laaj nag ba kañ lay accident yi rotal ay bakkan ci même réew di wàññeeku. Amar Ndiaye la ñu àndaloon ci dem ak dikk bi mu waxtaanee rapidement euh, accident yeeg ni ñu koy nemmeekoo euh, fii ci euh, Sénégal tey nag mu doon waxtaanee foofu ca Kaffrine mi nga xam ne lañ fay gis ci ay bakkan yu rot bari na bi ci mujj sànq la ci suba. sànq la ci suba mooy li nga ko waxee noonu borom 4-4 boobu ñàkk bakkanam donc mm-hmm. en moins d'une semaine presque fukki nit ñàkk nañ seen bakkan ci diggante boobu muy loo xamante lu lu doy waar la fàcc. Mm-hmm. comme ni ko Omar waxee ngi wax ne plus de six cent cinq cent morts yoo xamante daf koy def annuellement ñi ngi xaar sax chiffre 2020 yi sachant que 2020 quand même toogoon mois yoo xamante amoon na état d'urgence on espère que xëy na dina wàññeeku comme dans beaucoup de pays d'ailleurs ak Covid bi mais li ci mën a am mooy bin ubbiwaatee yoon yi on a vu que quand mbir mi mi ngi yéegaat nit ñi di ñàkk seen bakkan ci yoo xamante ni ay défaillance parce que ministère des transports waa ji warul dawul chaque fois bu amee accident dañ bu ñu defee constat dañ soit défaut visite technique la. wala wartoon na circuler mu circuler. la amul surtout boobu presque une route euh, internationale. parce que mhm. ñi ngi fay jàll di dem ba Mali. li gën a wér mooy am na ay forces de l'ordre yoo xam ñi leen di proposer ñu nekk foofu seen liggéey aussi mooy contrôler ñi nga xamante ne am na ni këyit buñ ko amul ñu teg leen ni daan. mais bu mhm. leen bàyyee ñu daw di alarmé bu ko defee suba ñu fàtte ko beneen accident amaat mm-hmm. je pense que ñi nga xamante ñoom ñooy autorités yi war a sàmm loolu seen rôle moom mooy loolu citoyen tamit gën a am mm-hmm. quand même benn ni koy waxee yar parce mm-hmm. discipline aussi dafa baax parce am na foo xamante tamit wàllu bakkan la nga yàpp ko da nga war a sàmm ni bakkan dafa foor wala ko saaganee mhm. euh, Fat Bintou c'est vrai que temps yi euh, coronavirus rek la mais am na yeneen yu fi xew muy mhm. recrudescence des accidents benn moment dafa mel ne dafa takkax naa sewaat léeg-léeg gisaatuñ ko woon mais fenn yi dafa yokkuwaat rawatina foofu euh, ca diwaanu Kaffrine muy zone très accidentogène surtout mhm. ça ça a repris de plus belle ah temps-ci su ma déggee vraiment accident damay damay damay tiit parce que je me dis que ne ku kër am dem doxi soxla mu xëy yim ñàkk bakken noonu c'est vrai que bakken suñu borom bee ko moom mhm. wante nag euh, parfois aussi parfois du nekk ndogalu suñu borom man je me dis que ndogalu nit ñi la ndogalu doomu aadama yi la parce que parfois la manière c'est les gens qui tuent c'est surtout ça parce que la manière de dont les sénégalais aussi mhm. conduisent il faut qu'on le dise aussi mhm. doy na waar yow booy dawal sax da ngay gis ne yow parfois da ngay tiit parce que da ngay gis nit koo xam ne day gis fu xat mu ne dafay doublé ah nit ñi li ñuy dawalee les gens yàkkamti nañu yàkkamti boo xam ne te comme Chérif l'a dit man je pense que discipliné woon mhm. ku nekk topp yoon ba parce que de toutes les façons loo yàkkamti yàkkamti da yegg mhm. boo dawalee ndànk yegg boo dawalee bu baax yegg mhm. boo toppee rek li ñuy wax parfois da ngay ba si nga ne eh, est kii nii jàng na le code de la code de la ah? bi ñuy wax parfois sax code bi sax talet en fait yoon bi dala koy war tali bi dala koy war da ngay gis ku nekk ci ci rond ku nekk ci rond di di nu mu tuddati sax amul yenn yi bon sens la voilà yenn yi en fait yenn yi bon bon sens la quoi et puis mm-hmm. c'est de l'éducation aussi mm-hmm. il faut que les gens aussi essaient de s'éduquer mm-hmm. c'est important c'est pas parce que dama yor oto ci tali nu ma neex laay laay dawalee dama mën a dawal parce que ñi fi aay dawal ñëpp ñoo fi accidenté ñi fi aay dawal ñëpp ñoo ñoo fi accidenté il faut que les gens fassent très attention parce que tamit tamit des pertes en humaines ci ay ci tamit vraiment mën na ñàkk mën na ñàkk c'est c'est important hein, intervention boobu et puis awa naan daan Euh, peut-être euh, buñ defoon li ci war dina dina décourager euh, ñenn ñi parce que dañuy gis c'est vrai que Sénégal fii bu bakkan doote wala leen dañuy on a tendance à dire que ndogalu yàlla la. Mm-hmm. mais parfois aussi daf ciy baax ñu teg yenn sanctions yi ba ku nekk xam ne lii boo ko defee peut-être am na lu la ci fekk am sax am na ñoo xam ne quand même c'est involontaire il faut le dire. mais am na si ñoo xam ne sago ak def lu leen neex moom mooy tax waa ñuy ñuy indi lu mel noonu. rek discipline. dafa ñàkk ci dañ dafa dafa tumuranke mhm. parce que tali bi nu leen neex la ñuy dawalee. du du ñu respecté code de la route. Mhm. ba pare tamit war nañu bàyyi xel tamit ci ralentisseur yi ñuy wax. Mhm. parce que di nga gis tali boo xamante ne. tali bi day liis chauffeur bi day koy teg rek moom nay xandal rek. Mhm. mais par contre bu amee ralentisseur au moins bu yeggee dina mën a freiner tuuti bàyyi xel ci ci ci nit mhm. tamit dañuy gis oto bu fees dell. Mhm. bëgg cee dugg forcément parce que bëgg nañu yegg. comme ni ko fat bi ne daru ndànk yegg sa yéene mooy nga yegg. nga xër tamit sa yéene mooy nga yegg. kon mieux vaut rek ñu def prudence. dëgg la def ndànk. en fait je voulais juste un peu souligner un petit point. Euh, tu sais moi Fatima j'habite à Kër Massar la VDN Aha. VDN 3 moom moo jugee Tiwaawoon Pël bi ñëw fii nii ba ba ba Cambérène mhm. mais foofu noonu ça fait plus d'un mois musuma xëy yeew gisuma accident accident ba démb ba démb moo ci mujj boo xam ne 4 x boo xam ne dafa yéeg ba ci kaw nu mu tuddati xaw ma passerelle la xaw ma nu ñu ko mën a tuddatee mhm. yàqu fa carrément borom temp 4x4 bees tàq la musuma xëy yeew gisuma regroupement ci yoon bi mhm. nit ñi taxaw y a des accidents absolument sur je sais pas ñii naan suuf nekk la suuf bi nga xam ne moo koy doucement foofu li awa wax sànq moo ci indi sama xel mhm. tali bi neex na lool wax dëgg mhm. neex yàlla mais daw ndànk dal ndànk am na solo te beneen mooy ñi nga wax perte en vies mais économie bi aussi parce que ku xam ne ne accident yi li muy jur ci économie bëri mhm. surtout infrastructure faat bi yaa ngi doon waxu bor mais bor yi li ñu leb nii maanaam ay tali lañ koy defaree mais moom koy yàq <laughs> sérieusement parce que boo xoolee infrastructure yi ni koy yàqee commencé mmh, beneen mooy aussi fermeté dafa baax parce que mmh, mmh. démb dégg nañ fi démb ay transport élément bi jàll na fi ca Mbour euh, ñu ne transporteurs yi ne ñoom nanguwuñ tolérance zéro maanaam dañu nekk ci état boo xam ne dafa xaw na am faiblesse maanaam bu yëkkatee dara gars yi yuuxu teg pression mu daal reculer loolu gis nañ ko ci transport moom ma tax mooy secteur boo xamante ne pour ñu moderniser ko du yomb parce que dafa am lobby yoo xam nekk ci biir boo jugee deux milliards ba léegi mhm. gis na ni accident yeeg tey nekk na président mais ba mu jubbanti mhm. wax nañ ko démb ci daara yi la même chose am na ñoo xamante ne amul intérêt pour ñu jubbanti parce que dañ mhm. ci am intérêt bu dee une minorité nag ñoom ñooy gagné au détriment d'une majorité bay sàkk suñu bakkan je pense que loolu ñi nga xamante ñoom lañ dénk pour ñu normer société bi ñoom ñoo war doxal seen liggéey bañ déglu benn pression boo xamante nga yàq boo moytuwul fa nga yendu ndax di nga xaar constat huissier bi dina ñëw di nga xaar leneen ak leneen sa oto yàqu ca nga topp ci assurance di daw léeg-léeg boo amee chance ñu remboursé la parfois dina jël temps donc muy yoo xamante ne si ndogalu suñu borom am na waaye itam li nga xam ne euh, suñu coobare la euh, du jar a bàyyi xel la Omar Ndiaye on te remercie di nuyu waa Ndukmaan yëpp ñu daw rapidement euh, ci xarala ànd ci ak aw signaté